teewal fi teew fi ci turu gouvernement bi ma jité ndax Ahmadou Makhtar Mbau nitu gouvernement la ndax nekkoon na ministre kon xamna gouvernement xamna état fi ci turu acteur politique bi ma doon yalla bolé mak mom ci liñu tuddé assise nationale maamoon ci cieur bu ñëk en tant que syndicaliste delu ci wat fekk ko bir këram point E

Dial wane na dimension wu Ahmadou Makhtar Mbow wane na dimension wu étatique d'accord, ndax ko xam nek nga député nek nga ministre kenn waxatu la luy état te servir nga sa rew témoignage yi na dimension scientifique et ak intellectuel am it dimension panafricaine africaine même su waxuñu ko ci témoignage ndax bokk ci membre fondateur yi taxawalon la fédération des étudiants africains noirs en France Té lolu defu ci won xaj ak seen lépp lu fay won africain rek bolé la won ko ci kuréel googu Woné na yit dimension internationale am ndax defe naa sudul ku njëkk ci ñu njëkk ci ay africain waxuma la sénégalais bo xamné jité na kurel go xam ne aduna wërgël la bokk na li gën a may fit Sénégalais yi ba organisation internationale bo jël dafa melni Sénégalais yi ñoo ëpp mom limu doon précurseur tamay wax précurseur précoce bokk na ci li Sénégalais kon jëmm ju mel non bu fi joggé perte bu rëy la ci Sénégal perte bu la ci Afrique perte bu rëy la ci aduna waaye nag yàlla mooy boroom dogal te may na ko loo xam ne ñu ngi ñaan ñun ñëpp mu may ñu ko ndax dund na ci lim ci ay at loo xam ne néew na fii ci Sénégal nit dund ko waaye teewul yàlla saa su ne tey la rek tey la saa su ne jeex na rek jeex na ñu war a dënkante ñun ñi fi bàyyi ñu ciy jiital njaboot gi di leen dénk muñ ndax xaddis bi nu wax mooy bu fi nit bàyyiwoo bàyyi ko mënaloo ko dara doo ko jox mu lekk doo ko jox mu naan doo ko dëkkal waaye ñaara fi des mooy muñ ak ñaanal ko kon ñuy dénkante ñun ñëpp muñ di ko ñaanal yàlla oyofal suuf ci kawam yàlla boole ko ci boroom këru barzaq yu yaatu yi mu jàkkaarloog këram ci aljana yàlla yàggal sarax bi suñu loxo ñun ñëpp ñeex koo fayantu yàlla may ñu ñu teg suñu ko ci wax ni ku mel nii dañ ko a référence au Sénégal et particulièrement à la jeunesse sénégalaise ndax koo xam ne bi mu demee ba ñëpp jàpp ni war naa moom boppam noppalu la retraite na largement l'âge de la retraite mu continuer ci combat politique dans le sens noble du terme moy du xëccoo nguur du fal leen ma waye lepp luy xalat buy defar Sénégal buy rafetal mbir yi kenn du ma fa jitu loolu dafa woné désintéressement don de soi pour la patrie ñu war ko jox exemple xalé yépp